xelal mbooleem koo xamante ni ab jullit nga wala ngay nit ku baax maanaam bàkkaar bi xam ne rëy na genn xeetu rëy koo xamante ni moytu ko mooy li te képp koo xam ne mën nga koo ñaawlu tamit nga ñaawlu ko moom sëriñ bi ci yéen kaay gi daat nay wax ne ma ngi encouragé di jàppale mbooleem ñi nga xam ne ñooy xeex boroom ñaari tur yi ci réew mi yéen kaay gi di suddi ko di cee nee na Touba jamono ci nag maanaam seen kàddu gi daan nañu koy diisal journal bi na Touba kay jamono ci dañoo mer ba maar détaillé ci borom ñaari tur yi yéen kaay gi fekk fa Seydou nga xam ne mooy porte-parole Macky Sall daat nay wax ne jamono ji njiitu réew mi daal na si joxe position boo xam ne bu a gi di si ko di cee las enquête xëy di ñu xibaar naan ñu campagne électorale bi daal nay commencé élection législative yi a gi di enquête nee na yu mag yëpp jamono ji porte à porte la ñu def Moussa ci université Gaston Berger nee na ji nag porte mooy li a baax ngir convaincre ñi nga xam ne ñooy askan wi yéen a gi ñu xëy fekk fa commission électorale nationale autonome di Sénat ñoom nag ñoo ngi ñaax mboolem société yi ak ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum politique bi ak sénégalais yëpp ñu ànd ak dal ci li nga xam ne mooy élection yi maanaam ak dal ba pare nag daal di li nga xam ne mooy fair play yéen a kaay gi di réew mi ko di cee xëy séeq waxtaan wu yaatoo ak waykat bii di Wasis Diop di waykat boo xam ne na nañu ko lool waaye nag toogoon na lu toll si juróom-ñaari at yoo xam ne kenn dégg ko daat nay wax lan moo tax mu nekk diggante Paris Dakar daat nay wax lan moo tax mu daal di koy tàmmak single bi nga xam ne génn na ko tuddee ko voyage à Paris loolee lépp andi a gii di Rewmi Quotidien yéen a kaay gii di Libération ñu xëy fekk fa professeur Moussa Baldé ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum agriculture ak wàllum équipement rural ci Sénégal daat nay wax ni démb nee atum ren mi naka lu jëm ci njënd mekk njaayum gerte gi 41 la te nag collecté nañ lu toll ci te nag daaw jamono ji tembe li ñu collecté woon mooy gis ngeen ren ni mu koppee moo tax nag lii mooy firndeel ne campagne agricole bi good fine ñi nga xamante agriculteurs yi jamono ji waxuñu dara ba tey ci biir journal bi moom professeur Moussa Baldé daat nay wax ne njiitu mi di président Macky Sall daat nay def ay jéego yoo xamante ni jéego yu am solo la ci lu jëm ci wàllu mbay mi ci Sénégal yéen a gi di laas ñu xëy fekk fa ñi nga xam ne ñooy ASP yi ñoom nag ñoo ngi interpellé ki nga xam ne mooy Macky Sall ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu dund ASP yi démb dañu doon janoo ak taskatu ko waaye yi maanaam cinquante mille la ñuy fayee ko te nag boo absenté maanaam ñu dagg la quinze mille ñetti junni fay la cinquante mille a kaay gi dee sa te xëy du ñu xibaar naan ñu kaan Cameroun bi ni bu njëkk bi diggante Cameroun ak Burkina yéen a kaay gi daanay xëy wax ci gaynde yi ana lan moo tax ñu war a dem ba sus ko boo Sadio Mané jamono ji nag na lépp ci këlëbam bii di Liverpool dafa war a li nga xam ne mooy kaan bi ngir nag mën a gën a dugg ci histoire yéen a kaay gi dee sa ñu xëy fekk fa Habib Diallo bi mooy premier kaanam